حمدا لربي على اللقاء أو أرحام mbokki jullit yi mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigal ak alxalifatul muazam cheikh ahmad tijaani cheikh ibrahim Niass alxalifatul aam li saahibil faydati tijaaniya yàlla na fi yàgg te wér cheikh mouhamadul amin cheikh ibrahim Niass di ki teewal xalifa bi ci Dakar al imaam cheikh ahmad tijaani sidi ali Cissé imaamu ratib Medina Baye ci ndigal ak xalifa bu Tayba Ñangeen cheikh ahmed Ñang ci ndigal ak ci teewaay cheikh alxaaji omar njegéen dàgg sàmb daairatu almutahabina fillaahi faro ansaaruddin ca dàgg sàmb ñooy am mbégte di leen yëgal seen conférence bi ñuy amal at mu jot ren mu tombeek samedi 18 janvier 2020 ca dàgg sàmb conférence bi nag ñu koy amalee ci ndigal ak ci teewaayu seen wasila maulana cheikh mouhamadul amin cheikh ibrahim ñas baaba yàlla fi yàgg te wér bis bii ñu ko dara jalee cheikh ibrahim bu baaba la mi nekk ca kër masaar ak sëriñ daara cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ñu gën xam ci Baye Mbaye MC président Shababul Fayda ak Cheikh Aboubacar ibn Cheikh Mouhamed Nazir Niass ñu gën koo xam ci Baye Mbaye Nazir programme bi juróom-ñetti waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci suba gi danay amal njàngum alquran ñaanal ci sunu réew Sénégal ak mbooleem alamul islami fukki waxtu ak benn jàpp benn waxtu danañ tatagal gan yi benn waxtu jàpp ñetti waxtu ñu amal ak dallu ñetti waxtu jàpp juróomi waxtu danañ fa amal taabu rond ñu koy taxawal di ndaw daayira bi danañ fa amal ay waxtaan ay thèmes yu uute ngir mën cee yee ñi juróomi waxtu jàpp juróom benn waxtu danañu amal ay zikar ñi koy taxawee mooy Moustapha Sarr Mohamed Njegéen Keba Njegéen Maam Abdou Njegéen ak Alxaaji Jëma Njegéen bu juróom ñaari waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi gi dañu amal conférence bu mag koy def al oustaz Cheikh Ibrahim Mar ñu gën koo xam ci Baye Mar thème ba mu war a waxtaanee muy islaam diine xam-xam ak jëfe bés bii danañ ci fàttaliku ñaar ñu amoon solo ci daayira bi fonkoon daayira bi ak seen gox boobu di dagg sàmbu muy Aliou Gaydia ak Jimba Ndey Njegéen daayira bi mu Njaañ Lagem kër Habdu Maam Touba Ñaan Kucce Njaay kër Sidi Taal kër Ngumbu Aneen ak Njaayeen Gorko mbokk yi bés baa ngi noonu muy conférence daairatu almutahabina fillahi nekk banqaas ci ansaaru diin nekk ca dagg samb di ko amal at mu jot ren muy tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier 2020 képp ku dégg woote bi mooy ca invitation jërë ngeen jëf